toujours amee amis internet yéen miy safoo dañu bàyyi xel fii suñu people tv suñu people point net mbégte la am ak contentement saa su ne di jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu seet sat ki nga moom mooy Jimbori borom Feeling Dakar kon ni ngeen koy euh, façon di gisee si suñu ay émission ñu fas ni waxtaanee nag ay ponk yu bëree bëri waaye laata ñuy tàmbale lañ koy nuyu ba pare Jimbori maa ngi lay nuyu eh, ngeen di bégal xam nga ma leen di nuyu bu baax di leen wax tamit ngeen góorgóorlu quoi góorgóor yokk leen góorgóorlu mm-hmm. dégg naa nag ñenn ñi di wax ni waaw yéen seen liggéey ni ngeen koy defee di leen ŋàññ ak yooyu xam yooyu tamit bu mu leen tax a découragé parce que koo dégg mu leen di ŋàññ yéen a koy siiwal ba mu siiw ba am tur parce que ki naan la euh, sit internet bi dañoo xaawi suturay diw dañoo filmer diw ak waruñu ko filmer ak nañ ko filmer demal xool kañ filmer ba fan la commencé parce que yéen yéen ay commencé ba nit mun koo gis bay xool lu xam ni naan jaaduwul ci moom. wax nga dëgg te tamit. Mhm. ah yéen tamit loolu moom maa ngi leen koy wax. Mhm. ba pare amaan na beneen erreur boo xam ne yéen a ko def. parce que mhm. yéen a créé ay nit ba nit ñooñu nekk. ba pare wëlbatikuwaat di dal seen kaw. parce que luy influencer nit ñu naan. ngeen toog armel yi dangeen ngeen filmer néew affaire yooyu kenn la ko xam ne xam ngeen ko yéen a koy jël dem ba si armel yi naan da ngeen filmer néew te gisuñu ngeen filmer néew kon kooku moo influencé nit ñi yéen itam boo leen di waneeti nit parce que fii bëri na fi ñu xam ne li ñu doon yéen a leen ko def nit ki nag sooy créer dara del créer loo xam ne bis bu sottee jural la njëriñ parce que loolu li leen ko yóbbee mooy naa amii vie mhm. ba tax nga fekk benn dof bu mel ni jimboori nga jël ko bu ëllëgee nag mhm. yaa ngi dégg xam nga dañ naan gaalu dof du teer mais dina teer mais fa muy teer moo dul neex mbokk yi mhm. ngeen di jël ñu war a wax parce que yonent bi dafa ne am na ñoo xam ne bu ñu waree wax nañ leen fay ñu noppi am na ñoo xam ne bu ñu naree noppi nañ leen fay ñu wax léegi da ngay nag dem xàmmee ñi nga xam ni su suñu waree noppi ñu fay leen ñu wax lool ñooñu la yonent bi wax ñi nga xam ne bu ñu waree wax nañ leen fay ñu noppi ñooñu ngeen di jël. waaw loolu rek laa wax mooy nuyu sama grand Abdou Aziz Sylla bu baax di nuyu Awa Mbuub sama magi bopp Camara Mbay xam nga yaa fa taal di nuyu soxna May Jaxate di suma xarit ama di nuyu sam benn booy Habib xam nga bàyyiwuma kenn Ami Njaay bu groupe topp ka Ndoura Seen bàyyi ma kenn daal ñi may béggee yëpp am nga ku ma xam ak ku ma xamul. Mhm. yàlla na leen yàlla defal jàmm quoi. Jimbori euh, gannaaw bi nga yëkkatee kàddu yu rafet yooyu noonu jagle ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay nattangoo euh, ñu bokk liggéey ci wàllum presse bi euh, dañ lay jaale di la masawu suñu yaay yi nga xamante ne moom mooy Mama Diaga dëddu àdduna gannaaw samedi bi nga xamante ne moom la ñu jugee Jimbori mu nekkoon sa yaay nekkoon sa xarit jege woon la trop ngeen sekk lu bari samedi bi bi nga xëyee ñu tàggee la ko. Ah, Eh, waa jaaga moom ku nekk mun na ko jaale boppam man soo gisee sit yu bari ñëw nañ sit bu ñëw ma wax mhm. lim ma defal mhm. loolu laay wax te dama koy wax mhm. yaa ngi dégg waaw lim ma defal loolu dama koy wax parce que euh, daf ma ko doon defal di bañ ma wax ko nekkatu fi te yàlla moo soxla ma wax ko duma ma rëy pour wax ko dama koy wax loolu moo tax ma koy wax mais Euh, bu la nit ne diw diw jege na diw xam nga hmm? voilà jaaga ñëpp ñëpp la jege ñëpp la jege parce que yonent bi rek moo ko ñor yiw ak yiw ak ku bëgg a baax soo ko jegee rek wax dëgg yàlla di nga baax man daal sama nit la woon comme nu mu nitoo ñëpp mhm. daan yamul ci nitoo ma kese mhm. yamul ci xelal ma kese mhm. tamit wax dëgg yàlla daf daan boole wax ñuy waxtaan digle te du ma dugal ci mbugal boole ci tamit di dindi dooleem di ko ci def loolu daal fekkoon naa kook moom. d'accord mais wax dëgg yàlla bu àdduna am na benn vidéo euh, euh, euh, boo xamante ne ni yéen ñaar yéen a ci nekkoon ak waali nga naan ko dama laa bëgg mu ne la yow sama borom kër moom nga bëgg mu ne wante moom bëggul keneen ku du Papa Thione. waaw ak noonu nit ñi di gis la ci. waaw mais jaagal lu mu waxoon def na ko. Mhm. xam ngeen loolu. Mhm. parce que daf na leen coon mooy sama jëkkër ju njëkk mooy sama jëkkër ju mujj waa léegi loolu def na ko ni parce que tey euh, mooy jëkkëram ju njëkk mooy jëkkëram ju mujj def na ko mais lu may ñaan mooy jaaga tey keroog bisu dëj bi moo jaaga moo def lu kenn musta def parce que moo dajale ñu kenn munta dajale ci benn ngoon xam nga mm-hmm. kon bis boobu wane na ni yaay soo biis moo moo dem. mais tamit jaaga soo biisul bokku ci. xam nga chaque jour dañuy toog si émission man leen Wally Seck mii ngeen di wax. du ci dara lépp yaayam la. mais yéen doo leen comprendre. parce que am na wax yoo xam ne soo ko waxee gars yi duñ ko mën a gëm. mais tey wax bi ma leen doon wax junjam mi ngi nii. li ma leen doon wax yaa Wally Seck mii mhm. li muy def nii du ci dara lépp yaayam la mhm. tey feeñ na mi ngi nii lii laa xam mhm. parce que dañ jëflante dañoo jëflante ma ak moom yaa ngi dégg ba pare ma wax la jaaga ma répété ko Wally Seck way moo tax nga xam ko su wayul woon mun na am ama ko xam Thione Seck xëy na tamit bu wayul woon doo ko xam Youssou Ndour xëy na tamit bu wayul woon doo ko xam mais ñooñu ñëpp bi ñuy dem di enregistrer seen way yi ci ay label lañ doon dem di ko enregistré. jaaga ndax danga nga ne dama xam jaaga ngir euh, ngir Waly Seck dama xam jaaga ngir coon Seck ak anam boo ko mën a xamee xam nga jaaga tamit ci mbaaxam ak defam lu kii nangam nangam parce que bi ñuy wax ba tey li mu lu baax li mu def la ñuy wax xamaam loolu nit génn na àdduna ñuy gërëm jëkkër ji di ko si dugalaale mais moom biñ koy gërëm moom kese lañ tudd turam. kon moom dafa demoon ci labelu labelu borom bi. di fa enregistré ay kasetam. limu am. way la de mais si yàlla ak bi la enregistré boppam yàlla ak yonent boobu bi mu gisee jaaga nekkatu fi ñooñu ñoo génn yàlla ak bi ñoo génne kaset yi ñu baax ñu wax ko. dafa mhm. xam nga ngërëm. Mhm. am na solo lool ku neex nga gërëm mais dafa am ñu xam ni am na ñu ngërëm jekk am na ñu xam ni ñu ngërëm jekk si seen gémmiñ am na gémmiñ yu jekk ci ngërëm am na gémmiñ yoo xam ne jekkuñu ci ngërëm gémmiñ yi gën a jekk ci ngërëm ñoom ñoo ñëw gërëm jaaga am na ñu xam ne du kenn bon de mais tey est que xam nga lu tax police soo defee soo amee problème mu lay téye vingt-quatre heures xam nga ko day lay téye vingt quatre heures day xool ñan ñoo lay seet bu dee ñi lay seet ay bandi lañ liñ la jiiñ dañ naan dëgg la mais jaaga tey bi ko bi ko yàlla téyee ñan ñoo ko seet ñu baax ñi mm-hmm. kon jaaga am na mérite ba pare da ngeen yéen journaliste yi dama bëgg yi bu xewetee mm-hmm. ngeen di jël yi si biti jaaga est-ce xam nga biñ koy indi euh, euh, acca demal mm-hmm. bi jaaga biñ koy biñ koy indi est xam nga li doon nekk ci armeel yi yaa ngi dégg li nekkoon ci armel yi xoola jigéen ñi jigéen ñi na nga rang ca taliba bi korbiyaa bi di romb jigéen ñoo ñoom ñëpp a doon yuuxu bu doon dëkk naar yi la dañuy sar xolle dañuy sar waaw pour la que am na mérite mhm. am na mérite loolu xoolam man corbiya bi ba bañoon gis. ko mhm. jullee bi dañ jullee corbiya bi di ñëw ma dugg si dugg si koñu armeel yi. Mhm. corbiya bi kii ma génn bi ma génnee ñooñu doon yuuxu rangaloo ca taliba. Mhm. ñii di yuuxu fu may jëlee ordinate fu may jëlee dépasse di yuuxu jigéen ñooñu. amoon naa lu ma naqari mais mujj gi damaa xaw a wàccee sama tempratique ñuy suul nit armeel yi muy dugg am ñu koy tàcc di tàcc comme président. muy dem di wuy ji boroomam loolu dafa jafe. Mm-hmm. jigéen am na jigéen ñu dugg si biir armel yi xanaa am loo yéen li ngeen war a wax waxu leen ko hmm? am na jigéen ñu xam ne dañoo dem ba dugg si biir armel yi maa dajeeg benn jigéen mu ne ma moom ay armel rek la ragal mais bi muy dugg si armel yi tayu ko. comprendre nga li ma la wax. Mm-hmm. kon kooku sori na ci moom parce que hmm? dañ naan. Euh, boo nee duma def lii fekk booba loo ba am foo toll comme nga ni duma diri mbaam booba mbaam dafa deewul sa nag ba nga ñamale boo déggee dama ragal nangam fekk na boobu yow ku jege si yow rëkk loolu dalu ko kon jigéen ñooñu bu ñu mënee dem bay dugg si armel yi nar koo dem fekk ji kooku ku baax la jigéen ñi aussi ñëpp tey bindkat yëpp dañoo war a dem lijjanti li jaaga def mhm. ñu bind ko teg fi mhm. ku xam ni tey di maa yaay Waly Seck doy na wala doyul. ndaje nga ko mas a gis mu fay séddale di fa baatare. takki or amul. yéegi avion. lambar lambar amul. lan lay def wër margo yi su xëyee. néew bu mu gis sangala si loxo boppam dindi xaalisu boppam def si yow. am na ñoo xam ni am waaye déggoo am na ñoo xam ne nii xam nga ni xalaatuñ tak kuy wër ngumbaay bu boo xëyee di wër ngumbaay yaa ngi dégg xam nga ni doo tala wër néew ba di ko sang parce que kii ngumbaay kooku xalaatul ci boppam dee mhm. kee daf bis bii la doon préparé kon jaaga am na mérite. Mhm. am na eh, mérite aussi aussi jimboori dañoo gis. yàlla na dee di noflaay. waaw amiin yaa rabbi ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gën a fi mu jóge mais jimboori li nga wax nii marqué na mais dafa am aussi lu marqué tamit nit ñi mm. parce que dañuy gis ni tey célébrité bu génnee àdduna wala sa waajur wala yow tey nga nekk tey célébrité. Ah. sa waajur génn dañuy gis nit ñi. Ah. si sinap yeeg lu nekk ñu koy bëgg a jël mais dañ cee gis benn organisation boo xamante ne ni comme nañ ko indee jébbal ko boroomam lépp na teg lépp jaar yoon. Hmm. ba ni waali génnee foofu noonu dem këram kenn gisu fa benn jaxasoo. Hmm. loo xamante ne ni mun nañ ne lii déborde na fi wala tey lii mun nañ cee ŋaañu tey waa kër ki na jug jaar. waaw mais dama lay wax benn affaire. ni hmm. euh, euh, euh, doon ñi doon dëj noonu. yaa ngi dégg. kuñ doon daj jaaga du dëgg <laughs> est xam nga jaaga moo njëkk wan ni wane ni <laughs> bu ma kenn filmé xam nga fan la ko wane mm-hmm. non da nga ko daan top sax di ko filme mu lay dee yow mi koy filme naan la suturaal ma rek nga wàccee sa yaram day daw mm-hmm. nga wàccee mm-hmm. am na wala amul léegi nag bi moom nga moom fan la génnee àdduna du Europe mu jóge Europe ñëw si ñun neñu lan lan la wax yóbbu leen ma sama kër directement mm-hmm. kon mucc na ci ñëpp wallaahi wallaahi naa nag nit bu mënee mucc si yow war ngaa jéem a mucc ci moom dëgg la yaa ngi dégg mm-hmm. leneen lu fa waay def yaa ko defal sa bopp mm-hmm. mais bis boo gis day wuyu boroom boroom bés bi nag moom moo moome loolu parce que soo biisul mhm. li ngeen di def xoola du déglu Thione Seck mhm. du déglu Youssou Ndour mhm. du déglu Wally Seck bi mu jur kon kooku mucc na ci ñii wax dëgg yàlla du noonu lii tamit am na ci d'accord wax dëgg ngeen di ànd ak Wally Seck ngeen jege ko Wally yaayam feebar kenn yëgu ko Ah. amaana yéen mi di ànd moom yéen di ko yëpp ah. mais mu ngi doon bëggal ay publicam ah. ba keroog bi yaay ji wàññee ko la nit ñi xam ne ndekete waali la muy bëggalee nit ñi yëpp ndekete mu ngi doon dundaale lii waajuram bu jigéen mu ngi am tawat waaw mais xam nga ñu bëri dañ naan ngeen ñi jege waali Seck waali man soppe papaam laa soppe yaayam la yaayam mm-hmm. di xarit yaayam aussi yaayam xaritoog man mhm. du dégg mhm, kon waali leneen la mhm. seen yooyu comme nii su ma bu ko waree gis nag dama koy gis mu nekk ku baax ku ñu préparé indi ko Wally Seck yaayam moo ko préparé indi ko soldaar la boo xam ne bi muy ñëw si àddina manqué wul arme te gars yi gisewuñ kook arme nag mais mu ngeek ay arme xam nga lu daa gis nga benn sëriñ mënu la ñaanal benn gàllaaj lu dul ne sa nday sonn yaayam am na yoo xam ne demal ci ñu ko gën a jege nga laajte ji jaaga suñu laajte woon jaaga maîtriser ko amul kenn ko xam ne jaaga dina teg doomam nga ñëw di ci jéem dara képp ku ci jéem ci man li ma ko xamee ak li ma waxtaan ak moom sa bopp ngay jéemal parce que njugub ba mu juutoo ni day day yàlla dafa day boppam comprendre lim la wax waaw lu leer laa lay wax da gis nit naan waa boo leen jegee waali ngeen ni ko lii ngeen ni ko laa am na ku naan keroog bërki démb gis naa benn waay xaw ma dafa dof xaw ma dafa katakay ni xaw ma dafa rakkaaju mu wooma naan ma waxal waali mu bàyyi musique mais mais mais bàyyi musique bi pour rek xaaral xaaral xam nga ñi koy wax bëri na. Mhm, bëri na trop comprendre waali moom bu bàyyee musique xam naa seen naa Aliou day bàyyi liggéey. kii Aïssa Rassoul jarul may jëkkër comme seen yay dee na non xaaral xaara xaara xaara xaara waaw xaara xaara ma yeggale xaara ma yeggale mhm. adduna mhm. saa bu yàlla jëlee nit mhm. papaam daf ko doon ñaanal yaayam ñaanal ko wayjur da lay gunge mais du la gunge ba nga àgg mais ñaan yi moo fiy des topp ko moom liggéeyam liggéeyam la mais moom ki la yéene torox mooy la mooy ki naan la demal tëddi am na loo xam ne xel waru ko xalaat mais nit soo waxee li si soxol mooy génn nit ñi ñun ñu koy dégg du dëgg nit ki war nga ko mën a liggéeyam liggéeyam la am na ñu ko fi mag fuuf gis nga waykat yi fi nekk mën nañoo nekk maamu waali Seck segam ñoom ñoo continuer di ndaga mhm. yaa ngi dégg nañ bàyyi Waly mu firi Waly ay papaam ñi fiy way nii sax dañ ko natt ci coon sekk rek naan papaam lañ mais buñ ko nattul ci coon sekk ay maamam lañ te ñu ngi fi di ndagalaa lay wax nii comprendre nga li mu la wax waaw waaw nañ bàyyi jàmbur mu def mi jigam ni mu ko war a defee parce que da ngay gis nit sax nga romb ko mu ne non boo demee ni Wally Seck nee ko lii nee ko lii Wally Seck su fekkoon ne euh, euh, euh, amul ay xalaatkat yu baax liggéeyul musique bi ni mu ko war a liggéeyee mm-hmm. est-ce que dina yegg si fii tey ba nit di ma di ma yóbbante mm-hmm. kon ñooñu amul lu ma leen di wax seen liggéey seen liggéey la mm-hmm. dama leen dama ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram yàlla na su coon ay ay dund li coon dund yàlla na dund ñaari yoon loolu en tout cas li ma koy mun a wax mooy dama koy répéter pour bëgg mu dégg ko gis nga liiru gëléem xam nga ko bu ragalee si biti lay fanaan su ñemee si biti lay fanaan ñemee tëdd biti ragal tëdd biti na ni dung boot njabootam mhm. parce que kër boo si juddoo di caat ba mujj ngay taaw mhm. taawul sa njaboot mhm. nga mel ni nga war a mel ba pare jaaga soxna ay dara moo koy remplacer Wally Seck tey mooy coon Seck ñu continuer seen dund waaw météo aussi jëmbëri parce que euh, en fait boo gisee souvent papa dee na est ce que damaa bàyyi soo bi dama xam naa damay dem tëdd moom ni paa bi dee na jaratul may dund ah waay déet ah, waaw waaw waaw mhm. d' accord météo aussi boo gisee jëmbëri ñenn ñi tamit di réagir noonu parce que ñoom jàpp nañ ni tey waali ñi mu amoon mooy muy wéeru waayam muy papam di con sec ak magam di muumi gér dani ba si yaayam ji génn barki Dembo Njaay ñoom jàpp nañ ñooñu ay wéeru waayam lañu ba taxoon na tey kàddu yu doon génn tey si biti yoo xamante lu bëri dafa nekkoon barrage parce que yaa ji euh, moom moo fi nekkoon ñu bëri nag jàpp nañ ni kon jamono ji euh, euh, acharnement bi day gën a bëri ci kaw Wally Seck waaw xam nga acharnement loolu yàgg nañ ko koo def du dëgg mm-hmm. mais jaaga mm-hmm. est-ce que da ngeen ko mës gis mu ñëw si soirée Wally conseil moo doon ñëw mm-hmm. lu dëgg mm-hmm. waaw mais jaaga nekkatu fi Wally du bàyyi liggéeyam day liggéey liggéeyam wax dëgg yàlla mm-hmm. day liggéey liggéeyam ba pare ñiy wax yëpp dañoo yaakaar ni euh, bu bu bu Wally bàyyee dañuy feesle bëgg a feesle donc te ñu yaakaar ni moom moo leen teree feesle moo tax ñu naan na bàyyi mhm. yaa ngi dégg bu bàyyee sax du tax ñoom ñu feesle te du bàyyi mijigam bii de mhm. day continuer parce que li mu nekk nii liggéey la day liggéey liggéeyam mhm. jotewul ak lële dara ba pare ñi jaaga jur bëri na pourquoi ñu tànn si benn waal sekk ne ko demal tëddi bàyyil sa liggéey ah, déedéet déedéet way xam naa moo leen di déranger ku way di déranger mooy wax ni na bàyyi mais gis nga képp ku way di déranger da lay gën di déranger. Mm-hmm. d'accord mais tey noo gisee. waaw sëriñ xamante ñu ngi génn di wax ginnaaw bi suñu yaay ku nekk di gisoon naa ko xamoon naa ko vaar commencé. non xam nga yow sëriñ Tariya. Mm-hmm. daa tekki boppam bu yàgg xam nga luy Tariya. sëriñ Tariya tuddul Tariya de xam nga nu mu tudd. Taliya. gisoo ku ciy commencé si pantere ngay dugg commencé ko. Mm-hmm. pantere xam nga nu mu tudd. pantele. koo ci fëgg néegam sa tur la lay njëkk laaj ba pare sëriñ yi yéen si internet yi nag yéen a leen fi bàyyi wax dëgg yàlla waaw parce que am na si sëriñ yoo xam ne dañoo déggoog ay site internet léeg-léeg dara day am ba jàll ñoom ñoo koy def enregistré sëriñ bi teg ko comme ni waxoon na ko te du dëgg du kese ba pare ñàkk xel mën taw weesu nga bëgg a nekk apparenté yàlla yow boo nekkoon apparenté yàlla xanaa yàlla lum la xamal ci nit ñi war la war na laa mën a dee yow sa datu dee dat bi ñuy dee xamuñu ko bay xam datu nit ñi bu ñuy dee man xam nga ban sëriñ laa gëm ni xam na datu nit ñi dee moom mu xam datam ba pare dooga xam suñu dat mais sa dat dalaa réer parce que sa dat bu la réerul woon doo wër di kàcc fen parce que kàcc fen ku ci dee sawara nga jëm affaire de sëriñ dafa araam chaque jour ma répété ko nee naa la exemple bi laay joxe chaque jour te Serigne Cheikh wax na ko yàlla bu amoon fu muy tëdd ñu yëkkati ko fa fi mu doon tëdd def pax lu nekk dinañ ko yëkkati def ci pax mi te pax bi du fees yàlla lañ yëkkati il faut ñu wut lu tolloog yàlla parce que tey bureau yi xoola bureau bureau karaak yi xoola ministre yi xoola député yi xoolal kër yi jigéen ñi siy sëy ñu yor seen jabar yi te gëmuñu yàlla yëpp koo ci dem mu ngeeg fukki ndomba ñen ñaa ngeeg juróom fukki ndomba ñeneen ñi bureau yi ñuy liggéeyee bureau bi day xasaw xunn mënoo fexe ba cuuraay ko garab yu xasaw la ñuy diwoo koo ci gis moo tax mais affaire bi day dem d'accord yow yaa gëm leneen lu dul yàlla kon loolu il faut mu animer la animation sëriñ bi ñun ñoo ko fi indi lu dëgg dara du yàlla ak yonent bi kenn melul ne moom yaa ngi dégg kenn melul ne moom yéen nag léegi da ngeen am ñoo xam ne dañoo remplacer yàlla léegi amatu leen ay kilifa diine de ay aninul mu'minin tamit ngeen créé waat ko ci biir dëkk bi waaw aninul mu'minin mooy ñi xam ne ñoo remplacer yonent bi comme Seydina Ousmane affaire yooyu parce que ustaas yoo xam ne dañuy ñëw ci dëkk bi di yóbbuwaate police bëri na fi yonent bi xam naa daf ñoo yóbbu police ñu gëm ko. Ah, moom kay yóbbuñu police moom. non non yonent bi daf ñoo yóbbu police de ñoom sëñ Tuubaa bi ñu ñëwee di waar gaa yi nii mhm. dañoo yóbbu gaa yi police. yow mënoo ma waar ba convaincre ma. Mhm. yóbbu police nga mën pour convaincre ma yow da ngay am ni nin moomi nin li ma def ak yàlla sama digganteeg yàlla nga. Mhm. fa man yax man min saala saratin xayran yoroo sarran yoroo yàlla moo ni lépp loo def lu baax sa bopp lu bon sa bopp. yaa ngi dégg bañ na ko ba wax na ko si am ma yata sax nee na am ma si ban mbir ngeen ya laajte yata na si xew-xew boobu ani na bahil azim si xew boobu nga xam ne fii kenn du fa wuute na bis boobu nga xam ne kalaasa yaxlamu di ngeen ko xam su ma kalaasa yaxlamu mu ne sa dëgg-dëgg di ngeen xam bis bi. parce que hmm. xool leen alam na jaari arda xool leen ni ma tàllalee suuf si wal jibaalu aw taadaa ma tegale ay montagne hmm. montagne yooyu mu tegale moo tax géej gi hmm. faaqul ñëw fekk si la est ce xam nga boo taxawee da ngay tiim géej gi tey jii mais yéen a seet leneen gëm ko sëriñ si nag yaa ngi dégg fa boo xam ne foo ko seen loxo bi kurus a si nekk mu génn àdduna nga naan waroon nañoo xaar tuuti. Mhm. booy seet ba muy am ba léegi. Mhm. est-ce que nekkul seetkat bi dalay wax tiflil ci xaalis bi. mais léegi da ngay gis ko xam ne doo tifli ci xaalis mooy tifli ci xaalisu boppam di la seetal. affaire bi yomb na. yomb na trop waxal rek. sëriñ da daan xaar eh, mhm. eh ko yow mu ngeen dem. xam sëriñ da daan ñu fay ko mu seet. mais sëriñ boo xam ne kenn xaaratoo ñu fay la da ngay seet te kenn du la fay. yéeme ñi mun nañ fen koo ci gis nag mu sol garambu bu di xogaliku mel ni buuru tan ah? te kenn ku ci nekk ci moom am na feebar xoola koo gis ci moom mu ngeek feebar bu ko tëttic booy sëriñu internet yi bu ñu aayoon ñun ñu nekk ci internet bi la ñuy ñaanal. dëgg la suñu laa la wax dafa am ko xam ni. Mhm. mooy gën a toog ak sëriñ yi ci internet bi. Mhm. am benn femme bu nekk Europe bu soxla benn sëriñ. Mhm. woo ko moom moo ko tegtal beneen sëriñ boo xam ne ma nga ba Kolda. ne ko ñii xamuñu dara. da dañu luñu xam. noo yaay jaame baaxoon na ci dëkk bi xam nga yaay jaame ba ko sëriñ si la jëlee Gambie xam nga nu mu leen def. kenn ku nekk dalaa woo laaj la loo mën a faj nga ni lii mu indil la ci fukk. la faj dem sa kër fajoo nga maayil tuut noonu la leen def sëriñ ya jeex. Mm-hmm. fii sëriñ bu taxaw di faj mu ngi mel ni pharmacie bu amul këyit. pharmacie bu amul kayit nguur gi day dem lijjanti ne da ngay rey nit sëriñ saa ngi toog si ruq di ay garab di ko jàmb di ko jox nit ñi nit ñi di ko naan di tëdd ci hôpital yi suukar bu dee yokku tamit di rey suukar xam nga feebar la buy rey fii ci senegal jabet fii euh, day ray fii naka cancer di ray sëriñ si tamit feebar lañ boo xam ne dañuy rey di taqale ay diggante di xotti ay orma di fen rek di teg boo mënee seet seetalal sa bopp. Mhm. mbaa sa nday mbaa sa baay. Mhm. mais génn di garaaw garaaw garaawlu ba pare léegi ñun internet bi dañ koo seq ak wutkatu buzz ak wutkatu vi mhm. wutkatu vi mooy ko xam ne naa mi vie. wutkatu buzz mooy nu ma ko waxee baax na buñ ma yóbboo police naa siiw rek. comme Khalifa Sall naa bokk rek. yaa ngi dégg waaw. di makk yeewu di dugg lu seen yoon nekkul mel ne temps yaa ngi dégg waaw dama ko si boole sama gaayen la waaw nañ ñu may jàmm non nañ ñu may jàmm <laughs> waxal rek saf wax wax saful wax wax mel ni tans yaa ngi dégg <laughs> nañ ñu may jàmm. d'accord nañ may jàmm waaw waaw xanaa booy seet sax di nga xaar ñu jox la dara. Mm-hmm. mais dem ci internet bi di fen rek mm-hmm. waxuma ne amul ñu mën am na ñu mën mm-hmm. mais ñii fen moo ëpp. d'accord wax dëgg yàlla. mooy ñi jéem a doon nit ñi daal euh, dañ koy tëjee li nga xamante mooy coowal Nabou Dash ak Oustaz euh, Matar Sarr Nabou Dash dañ koo porte plainte Oustaz Matar Sarr nee na Nabou Dash dafa yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ñoom si seen i kaw te Nabou nee na moom sëriñ biñ ko yóndee ñu dafa doon tëddee ay ñi mu doon jàngale moom kooku la si tudd. waaw am na benn sëriñ bu jël ko am 14 ans euh, yabal ko si hopital pour mu def planning. loolu la Nabou Dash wax. dëgg la kaw kooku. Eh, dama ne. Mhm. bu tëddeewul na wax ne tëddeewuma. Mhm. ñu ñu wax ne tëdde nañ. Mhm. tëdde moom ñaa moo waa doo ma déglu waa doo ma déglu ñaata nit ñoo fi tëdde te joxu leen pelent Nabou Dash rek la mun a jox pelent Nabou Dash man ay xam nga Nabou Dash ma saaga woon duma ma fayu. su ma mbéjee du ma fayu. parce que Nabou. Mhm. wax dëgg yàlla ku koy dimbali da koy dimbali waaral ko jëkkëram ji mu dellu si. wala nga waar Nabou mu dellu. mais Nabou Dash yor liir bu tooy xepp nga koy pelent. Nabou Dash laay demanteel police ndam la. Mhm. l'islam toppul Nabou Dash dara ba mu nee daa yor yori këyiti dop ku l'islam wàcc nga war ko yow. ah mais dafa am ay association yu nekk ci dëkk bi. kii la ñuy wanee ni ñoom ñi ngi si. pour wan ni ñoom mouvement lañ. d'accord nañ jéem a nekk mouvement yàlla. moom ni mu def pelente nabudaas mm-hmm. amul lu mën a munta waar nabudaas ba mu waaru munu ko nabudaas bu waxee lool moom la tooñ mm-hmm. waxal ñoom bu ñu bëggoon dimbale taalibe yi xam nga lu ñuy def organiser wu indi benn chart yóbbu ko ensemble ñu voté ko ba nga xam ne kuy ubbeeti daara ñoom ñu yëg ko lii jeex mhm. moo gën a gaaw yóbbu nabu mhm. waxa rek mhm. yóbbu nabu daas ban ban sens la am ba pare ñoom ñuñ fi pelante day bëgg a bëri nee leen du ñu aninul muuminiin yonent bi tegu leen fi yàlla tegu leen fi man laa wax man laa wax de ñooñu nga lim du ñu garder sama diine nga ni ndax dañ ma gën a sell gënuñu maa sell bay garder sama diine xoola ba fi yonent bi jógee xam nga yonent bi dafa mujje yàlla ne ko dama lay yónni yónni sa xeet yi est-ce que xam nga l'islam diinay fàttalante la am nga droit nga fàttali ma mais amoo droit nga sañaxal ma parce que lakkum diini kum waliya diini moom nabu daas buy ñoom de xam naa ñoom nañ ñëw wa xaam wan ñu ñiy dem àjjana ak ñiy dem safara ñan nañ xaamee nañu waaw doomam may ñoom ñëpp kenn ku si nekk am na tele boo nekk mm-hmm. boo demee borom tele ba sax jubul aaye borom tele bi boo taree ba jub ko si arxuraan sax doo ko ñimee tari mm-hmm. parce que foo nga ni boo ko taree mu daax la mm-hmm. nee leen diine kenn du si dund ku ci dund doo góor nañ wuti métier te may nit ñi jàmm maa ngi dégg ku wax waxam diine ñëpp a ci am part de responsabilité mais jël diine mel ni ku ko denc sa néeg ku wax nga pelent ko yooyu tamit ay caaxaan mi ngi ci nañ waxtaan ba d'accord diine ñun ñëpp ay ànd xeexandoo ko mais benn nit mënu koo xeex ba pare booy xeexal diine amoo benn solution budul dem yóbbu nit ki police yow li nga tari ko ci arxuraan ba mu jooy ne duma ko defati moo ko gën boo demee kër Serigne Babacar Sy foofu noonu suul nañ fa tama est ce que xam nga loolu. alaaji Maalik danaan jàngale waa ji yor tama ji di ko tëgg si noppi alaaji Maalik ji mbër yi di bëre fi jumaa ji mag ji nekk mais buñ ko nee doo wax si ñii mu ne déedéet bàyyi leen ba ma pare ci ñoom mhm. bi mu paree ci ñoom dafa convaincre borom tama ji ba ta kooku jox ko tama ji mu gas ko suul def ko noddukat mhm. mbëri làmb yi di lal malaan wasifa yi alaaw ma salli yi di jolli mais ñii mënuñoo convaincre kenn ki la yóbbu police du la waar te gis nga bu yóbboo nabu daas police ba nabu ñëw kull kuy mbokk nabu bu la gisatee ngay waaraate même bu aaye bi demee noonu dalay zappe l'islam xam nga il faut mu dox ci moral ak partager ak naxante parce que yonent bi sax yàlla daf ko doon wax ni ko Mouhamed yow waaraate kes waaraate kat kese nga mhm. ñu war a gëm man la mhm. ñu warta gëm damaa dugal seen si seen nopp yi xëcc bañ téen mhm. fii ba suba mënoo wax bañ bañ gëm la parce que yonent bi si kanamu papaam xar na weer wi ñaar saxal na garabu ma mu sax kooku witti lekk ba pare ne ko njabar la ñoom nag yóbbu police mooy seen kii mooy seen kéemaan nii moom amuñu benn kéemaan bu dul yóbbu la police du dëgg segam yonent bi moo def loolu xam nga yonent yàlla noohin mhm. ñeent fukki at ak juróom la woote amul sax ñeent fukki nit kenn gëmu ko après ñoom wala mhm. bi kenn ñëwee di puub si gaal gi mhm. rek daanu rek gaana gi wér mu yuuxu waa dëkk bi raxas gaal gi ba gaal gi set wecc yàlla ni nooyin demal nga xool sa gaal ga mu ñëw ku yàlla narta fay du la liggéeyloo du dégg mm-hmm. ba pare segam yonent yàlla nooyin moo woote ba sonn kenn gëmu ko mm-hmm. waxu malaak ay ñii nii tukk-tukk mm-hmm. ñii nañ xam lislaam lu ko wund pour ñu mun ko doxal lislaam nekkul lu xam ni da ay forcer nit ki nit ki da nga koy mën a convaincre nax ko taril ko ay aaya dem ci biir xol bi ci biir bopp bi sànni ci ci ci kii bi mu dem mais c'est que soo gisee man nettali la yonent yàlla nooyin yonent yàlla nooyin yàlla dafa ne ko génnal nga woote mais ndekete dugalul sirru si gémmiñ gi mais bu mu nee yonent yàlla Muhammad génnal nga woote dafa dugal sirru si gémmiñ gi ku mu waxal convaincre la non dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen may ilmu may leen daal si seen làmmañ ku ñu waxal convaincre la am na ñoo xam ne fii ba suba mënuñu convaincre kenn ak gisoo way yi sax am na ñoo xam ne dañuy way nga jooy mhm. am na ñoo xam ne ñu way nga xam mhm. niveau yi bokkut comme sa mhm. diine daal nii ngeen nii ñu koy pacaxoo fii non non diine dafa am ab c'est à part diine c'est à part yaa ngi dégg ba pare yéen bi ngeen demee ba diine ngeen wutal ko kii lañ ci war a song ak kii waru ñu ko cee song booba ngeen wàcc. waaw en tout cas daal gars yi nekk fii di pàccax pàccax yi du ñu aninul moomi niin yàlla tegu leen fi yonent bi tegu leen fi waxtaanuñu ba jubóog ñoom ñu teg leen fi man ñooñu mënuñoo garder sama diine man. wax na ko dégg naa ne sama diine du ñooñu laa koy jox. ñuy lëfër lëfër yi mel ni ku dugg si mbuus. déggoo ma. no ah, non dama waaw non non. dafa am loo xam ne bu fe diine bu ko police dee réglé rek nekkatul diine. dëgg waxa rek. mel ni ku jàpp sa saaj. wallaahi yóbbu hmm? mais yow nabu def na erreur demal toog boo amee loo ko convaincre nga taril ko. moom nee na woo na nabu daal na laay wax lu muy wax. waa léegi nabu daas bu laay fee moom la laay fal xanaa. nee moom bu demee alaxira moom la fay fekk mooy layal na waxa rek. te nabu mën a may xam nga loolu la daal en tout cas daal bugg nii buñ ko defee diine daal day indi fitna daal mhm. te bu yàggee ci xeexoo lay mujj daal parce que yu ndaw ndawaan yi ngeen ci nonoo la jóg. dëgg la waaw jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm sa waa ji. càndum mhm. waaw leen gërëm bu baax di gërëm Yves. Mhm. li mu ne ko gëj naa ko gis quoi. d'accord dana ko merci beaucoup Djimbory. voilà Cheikh amee internet mu nekkoon Djimbory borom Feeling Dakar kon nuñ koy defee rek saa tous les quinzaines dañuy ñëw jël si ko fi nga xamante moom mooy Faye Fam di jaajëfalaale sama caméraman Thiandoum nee naa leen saa bu yaay njee rek moom moo si jaar di doon joxaat di daje d'ici là portez-vous bien à bientôt.